ci lenn ndigal yéen nag yéen a am taw feexi fekke ko ne ca bisu màggalu poroxaan ne Cheikh Mamadul Muntaxa ba muy ñëw ca cérémonie ba ne da ko wooluwaat am yum ko fàttaliwaat ni na ko wax taalibe yi ne li alxuraan di wax nag ne mu fàtte ko ba jotu koo wax ne doomu aadama moo munta mat ne kon nag yéen a am tawféex yi nun fekke ko ne te day mel na it la ca ëpp lii sabab la ca ne loolu mooy yoon wii di autoroute bi sëñ bi ne yëg na accident yi bari na ci ne kon mu ngi ñaan yàlla seral ko waaye mi ngi digal nag jullit yi ak taalibe yi ak ñi bokk réew mi ñu xam ni accident dogalub yàlla la waaye sababu su doomu aadama ca la bokk kon nag yaakaar naa sëriñ bi nee na la Cheikh Mamadou Fadal Mbacké daa santaane di wax ni ku ko def yàlla mën na laa musal ci accident na ko nit ñi gën a sàmm ndax accident yi bari na ci yoon wi te la cëpp nag ñàkk a sàmmonte li code de la route wax ak nañu war a dawale ci autoroute ba moo cëpp kon sëñ bi nee na taalibe yépp nañ ko xam bu sañoon ku jóg di siyaare ji wala ngay seet sa njaboot wala ngay jokk say bokk da nga dem ci jàmm del siwaat ci jàmm kon nag Cheikh Mamadou Mountakha mu ni mi ni nga gën a digal ñëpp képp ku tënku ci ndigal ak koo xam ne bu la laabiree mu mu jar mu jariñ la nga gën a bàyyi xel loolu te gën cee soññee ba mu àgg ci ñëpp ndax bu ko ñëpp sàmmoon teekat nee lu mel noonu buñ ko defee cim réew ngir bëgg accident yi ba gën a wàññiku la waaye def ko mu gën a yokku nag loolu fitna la te la cëpp nag nit ñee kon nag loolu na ci ñëpp gën a bàyyi xel ñu ngi leen sant.